ولطف بهما وأطال بقاء الإيمان آه، فينا تاي نك ني ورا دورا جيان سوني جروم ñaar fukkelu dark ak ñent ñi ngi tambalé ci page numéro 107 منو أما السؤال عن السلب للعارفين هل يقع لهم السلب من مقامهم أم لا؟ mu ne moom Mawlana Cheikh Jaarullah ne laaj bi ngeen di laaj ndax aarif bi ndax ki dem ba jàpp ni xam na yàlla wala ki dem ba yegg ci yàlla ndax kooku dinañ ko rékki ci maqaamaam am déet ndax mm, ci lu gën a leer booy ndax nit mën na nekk aarif ba ci yàgg dootu nekk ci aarif loolu lañ laaj Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu di ci tontu <coughs> mu ne aljawaab tontu ci loolu أن لا أمن لأحد من الثلب الجميع العارفين إلا قد الأقطاب وحده أو لمن كان عنده الإثم الأعظم فقط أو لمن ضمنه شيخ كامل والسلام مولانا شاتجا رضي الله عنه كان دو متتينو ريكي سب قام يالا مانام بولم عارفي مونيو متشو تيو ريكي لن تي بيو kuduut xutbu bi wala koo xam ne yàlla jox na ko ismul aadam wala koo xam ne cheikhun kaamil sëriñ bu mat sëkk moo ko garantil ne ko yow doo rikkeeku ci ci péer yàlla bi bu dul loolu aarif yi sama maas gi buñ defee lu leen war a rekki ci péer yàlla bi rek dañuy rekkeeku ci péer yàlla bi واما السؤال عن حقيقه الانسان من دال نا لاتي شي دغ دغ انسان دغ دغ دوما ادم ومن ما وجد اك لان لا نكو حملي الى اخر بلاج بجيه وماذا يراد به اك لو نم شي عمل دوما ادم فالجواب تنت شي لول مولانا الشيخ جيان عبد الله ني فالجواب عن الجواب عن حقيقه الانسان تنت شي دغ دغ دوما ادم هو موم فهو موم دوم ادم مجموع الروح والجسد موي كي دجال روح جم ولا استبداد لحقيقة أحدهما دون الآخر تا بن شي نيوم نيار مونن كو روتي ولس بجا ديف ني تودي نيت كي دوم ادم والله سبحانه وتعالى ما ذكر في حقيقة الإنسان إلا الجسد mu ne suñ borom subhaanahu wa taala tuddul ci dëggi dëggi doomu aadama lu dul jëmmam ji waaye jëmm jooju moo ëmb ruuxu ndax ruuxu kenn mënut koo laal waaye foo laal ci jëmmi doomu aadama bi ruuxu la buur wala qad xalaqna insaana min sulaalatin min tiin ñun yàlla ñoo bindu doomu aadama mu bàyyee ko ci ay cosaani suuf suratul muminuun aaya مثل قوله أيضا بتيل من وخم اقرأ جنجل باسم ربك ستر برم سورة العلاق آية نمرو إلى غير ذلك يدلي من الآيات من آيات القرآن في أي آية القرآن الكريم فإنه لهم كلما ذكر خلق الإنسان من برم تبارك وتعالى سايت البند دوم عالما ما zakara du tudd illaa suurata jasadi lu du melaw jëmmam ji wa amma ruuxuhu daal nag ruuxu doomu aadama faqad katama allahu amraha yàlla dafa nëbb ay mbiram wastabadda bi ilmiha mu feeñal xam-xam bi an xalqi yi ci mbindeef bi maanaam dafa nëbb mbiri ruuxu feeñalee xam-xamu ruuxu ci jëmmi doomu aadama min haytu qaala xiina waqa su'aalu anha Euh, loolu nag mi yaam am keroog ba nga xamee ni wax na euh, ba nga xamee ni tàbbal nañ laaj bi ci moom wa na ani ruux ñu lay laaj lan mooy ruxu wala ñu ngi lay laaj ci mbiram ruxu mu ne quli ruuxu min amri rabbi tontu leen ni ruxu ci am rob sama borom bi la bokk kon ruxu du lu ordinaire waaye lu yàlla jëlee ci jëmmam ji la tàbbal ko ci jëmmi doomu aadama moo tax ruuxu bagaas yàlla la mu ni sabal ko doomu aadama bi waaw walam yazid fi bayaaniha li istibdaadihi subhaanahu wa taala fi dolliwu dara ci leeral mbiram ruuxu lu dul min amri rabbi ndax feeñal gi nga xam ne moom yàlla dina feeñal xam-xam ruuxu ci jëmmi doomu aadama kon nag fa haadihi lii xaqiqatul insaani mooy dëggi dëggi doomu aadama bi ci li feeñ wa amma xaqiqatuhu lbaatina dëggi dëggi doomu aadama bi nag ci baatin fa hiya marmuusatun fi qawlihi mooy li nga xam ne moom leen ko ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa lan la yonantu wax yonantu bi sallallahu alayhi dafa ne inna allaha xalaqa aadama ala suratihi yàlla dafa bind aadama ci meloom moom yàlla waqad ashaara ila haada junj ci lii bi isharatin latifa ci junj goo ne junj gu sew la bi qawlihi ci waxam ji al insaanu xadaratun doomu aadama bi ab pays la xadaratu mat sëkk tuubila biha xaddatul jamal maanaam ci moom lañu nangoo péyëb jamal waaye xawat sirral aala bi asrihi mooy ki ëmb mbootam mooy ay ay jumtukaay jumtukaay bi asri yi mboole seen moo ëmb mbooti jumtukaay mboole seen yàlla nag dafa bind aadama ci meloom moo tax wax naa ko fii ci dars yi weesu kuy wër yàlla di ko wëree ci beneen melo bu du wut doomu aadama doo ko fa gis aarif bi loolu la doon wax ni atatlubu layla wa hiya fiika tajallati wa taxsibuha xayran wa xayruka ndax da ngay sàkku ji layla atatlubu layla te layla du feeñee du wut ci sa jëmm ji yaa ngi koy njortu keneen te layla du kenn ku dul yow layla nag kim ci jublu ma déggal تفهم مقالي وقد قال في الفتوحات شيخ عرب الحاتمي رضي الله عنه وحنا في فتوحات المكية يعني ما صفة آدم لن موي ملو آدم قال من إن شئت قلت أن وحني سورة الحدث الإلهية جمي بيب يالا بي ولا ملو بيب يالا بي موي آدم وإن شئت قلت أن تنوحني مجموع الأسماء الإلهية بولم ترو يا الله ما يارا لا آدم دفع سيد لكو تنياري خاد جم أغروه تقم غني روه موي مظهر الصفات جم موي مظهر الأسماء كن نياري يب بلتنا أنغا وقو المراد من واما السؤال عما يراد من الانسان من كي لاج نك لان لا نام سي دوما ادم المراد من لي نام سي موم موي مظهر صفات الحق موي فين واي ملو يالله موتاخ ان الله خلق ادم على صوره ادم نيو في حدود فينال ملو يالله فانه وقع بما فيما سبق على ما اخبر به بعض اهل الكشف فانه لا موم وقع تبنا فيما سبق في جيتو كم نيغا خاني بوروم كشف جوهي نانتي خبار ان الله خلق الروح طوله تسعة تسعة تسعة مئة تسعة مئة سنة وثمانين ألف سنة من يالا بن روح قد دائب روح نتولو كي جرون نينتي تيميري أرض maanaam jun euh, ak euh, wa samaniina alf juróom ñett fukki junni at ak juróom ñeenti téeméeri at wa arduhu gudda yaatuwaayam gi tamit kadalika noonu juróom juróom euh, juróom ñett fukki junni at juróom ñett fukki junni at ak juróom ñeenti téeméeri at wa tarakahu fi تربيته مبايك في تربية في رونم يلاطفه مدك نيوان تل بعواطف بره نيوان تك باخم وامتنانه أكمايم وإظهار آثار محبته لا مفيني الجيخ تل بجيلم تي منفقام في هذه التربية تل جيفيني نتي بوبل تربية فلما ذاق ألم الفراق jëmmi ma ruuxu ruuxu boobu nag ba nga xamee ni dem na ba ñam métti teg tàqalikoo ishtaka ci la jàmbat wa qaala mu ne ilahi wa sayyidi wa mawlaay yow sama borom yow sama sang yow ki méngoog man laa utiqu hada alfiraq man de attanuma tàqalikoog yow fa qaala lahu rabbuhu subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala ne ko maa xalaqnaaka li takuna muridan li nafsik ñun binduñ la ngir nga nekk sa namm-namm ak jëmm ji maanaam ngir lépp loo bëgg rek muy am wa innama xalaqnaaka li nudhira fiika sirran sirra waaxidiyatina waaye dañ laa bind ngir feeñalee ci yow suñu mbóotam kenn gi maanaam mbóot moo xam ne ci lañ ñuy kennale hada alladi yuraadu min al insaan lii lañ namm ci doomu aadama kon doomu aadama yàlla daf ko bind pour mu feeñal ahadiyatoom gi pour mu feeñal moo tax jëmmi doomu aadama junñuñu lu dul ahad yëtub yàlla gi jëmmi doomu aadama junjut lu dul ahad yëtub yàlla gi moo tax mboolem tajalliyaat yi muy ahadiyatu di waahidiyatu di muhammadiyatu di ahmadiyatu di xilaafatu tajalliyaat yi yépp boo ko xoolee ci jëmmi doomu aadama bi fekk ko fa waaw boo ko xoolee ci jëmmi doomu aadama fekk ko fa te tëgaliyaar yooyu génnul baatu laa ilaha illa allahu loolu lu am solo la aarif yi dégg nañ lool euh, mu ne haa wali haada loolu moo tax xuliqa baatinan ñu bind ko ci baatin walladi xuliqa lahu zaahiran liñ bind nag kim ki nga maanaam ruuxu loolu moo tax ñu bind ko ci baatin waaye kim bind ci zahir mu feeñ mooy doomu aadama wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni kon li taxoon li tax yàlla nam ma bind doomu aadama ci baatin mooy mu feeñal ahad yatoom gi waaye wala wax waxdaan yatoom gi li tax nag mu bind ko ci zahir mooy ñu jaamu ko fa hada xitaabun fi aalami alxikmati wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni bindu ma nit ak jinna lu dul ñu xitaab la boo xam ne yàlla nga ko def ci péeb xikmatu kon bu njëkk ba ci péeb machiatu la bii ci péeb xikmatu mu ne wal xitaabu fi aalami al baatinam addu gi yàlla di àtt nag ci péeb machiatu baatinan loolu baatin la huwa ma siixa fi l mooy li ñu wax rek ci baat yooyu ñu jàll والمراد من الإنسان لنم نجد ما ادم في كل وقت كبير وقت هو ما أجاب به الجنيدي موي لنا خمنا مملا إمام الجنيدي رضي الله عنه طنت حينما حين سئل كرب بنك ما مراد الله من العالم لن لا يالا نم جي عالم جي قال من ما هم فيه موي لي عالم بي نيك رك لول لا يالا نم جي أراد لم نم جي وخ جوج موم إمام الجنيد ما هم فيه لم نم أراد أنه لذلك خلقهم manam jaamu yàlla bi li nek diko dundé rek lolo tax yàlla bind ko walaysa bil jawab namun ci tontu bi annahu laysa illa suratu taqallubat wal harakat do ma adama dud melowoo melo xamne day wëlbatikoo ka yëngu bal ilmuraadu min kalaami aljunayd li ñu nam ci waxu imaamu junayd an jamia taxarukaati alaalam wa taqallubatihi wa qusudihi wa khawatirihi كلها مظاهر الألوهية ما هم فيه بوبو إمام الجنيد وخ موي مبولم ينغو ينغو بعالم دي أك ولبتكو أك جبلواي أك خواتر مبولم عالمي لب دفعي جنجرك نليو يب أي سين واي ألوهيتنا لأنها آثار الأسماء موجهة التوري والصفات أكملهي kon alxalqu kulluhum mazahirullah bindee ci yépp ay feeñuwaay yàlla la waaye mazahir yooyu dafa am lu ko jëmmal mooy mazaru li nga xam ne mooy mazaru zaat mazaru lismi ak mazaru sifa wa min hada al maana ci boobu ci boobule maana nag yaqulu man qaala min al aarifin am na kenn ci aarifina yi wax na ab waxam ne maa fil kawni kulluhu illa al kamal kawni bi dara nekk fi lu dul mat ak jëm yàlla te wax na dëgg ay tëjëliyaat la yu wuute rek bàyyi ñu sof yolaan wax na ci benn wayam ne fa tëjëli tawran léeg-léeg mu def tëjëli mu nekk jamaal léeg-léeg mu def tëjëli mu nekk jalaal bu ko defee nag jëmm ji mujj nekk yàpp ju ñu toggati loolu mooy aynul kamal kon kawnu bi dara nekkut ci lu duwut mat ak jëm yàlla ci maa fi suratu naqsin aslan amut benn melow melow manke bu nekk ci alam li anna tilka kamalatun ulu kamalatun ulu kamalatu uluhiyati ndax yi muy feeñal yépp mooy matub uluhiyatom gi innama naqsu waaye manki manki fiha amru nisbi loolu daf ci nekk mbir moo xam ne amr nisbi la maanaam lu ñu askanale doomu aadama wa fil xaqiqati ci dëgg tamma illa al dara nekkut fi lu dul mat ak jëm yàlla bi li annaha kamalaatu kamalaatu uluhiyati yi ndax manqué manqué boobu ñuy gis sax dafay firndeel matuk uluhiyatu yàlla gi summa qaala radiallahu anhu topp nag mu wax moom moolana cheikh tian radiallahu anhu man balaga al maarifa ku yegg ci martabak maarifatu asara ala hadihi alxaqiqa la maxaala dina jot xaqiqatu boobu du jomb ci moom wa billahi tawfiq dëppale moom yàlla rek ci lane mu ne jeex na moom si daal xaasim lii lañu Mawlana Chatiyan radiyallahu anhu fite moom mi nga xam ne mooy suñu sëriñ bi suñu ustaas radiyallahu anhu min xisbihi ci liñ wattu ci baat ya wala bi ak i baatam kon loolu doom lu am solo من وسميت هذا التقييد بإشارة من سيدنا رضي الله عنه الدرة النفيس في الفرق بين الروح والنفس من غير تلبيس من تونت في فنك بيني ما نشأت بيان فنك حقة الإنسان من كنت دي الدر النفيس ما نام أور بسات في الفرق بين الروح والنفس في leral li dox ci diggante ruuxoog nafsu min xeeri talbiis ci lu amul benn lëntal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna yàlla julli ci suñ sang bi muhammadin ak njabotam ak sahabam te musal leen wa suila wa suila radiyallahu anhu an masaila minha qawluhu alayhi salatu wassalam ulamau ummati ka anbiya bani israil xadis boobu donte que ulama ul xadis wax nañ ni laa asla la amul cosaan maanaam xadis mawdu la waaye boo demee ci ad durarul muntasira fi ahadis al mushtahira li suyuti di nga ko fa fekk boo demee tamit ci al maqasid al xasana li saxaawi di nga ko fa fekk muy xadis bu am solo ñoom ulamaul xadis am nañu wax ni amul aslu waaye ñun lépp loo xam ni Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu indi na ko ci xadis dañuy gëm ni wér na ndax moom dafay laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zarul xëy bu di ko wéralal xadis comme ni mu rotee ci jawaayal maani euh, dañ ko laaj xadis boobu boroom xam-xamu umma bi dañ leen di gam-gam lekk yonentu banu israil bokk na ci laaj yooyu tamit qawlu abil abbas al marsi waxu abil abbas al marsi bi mu wax ni law xujiba anni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tarafata aynin maa adattu nafsi min al muslimin buñ ma hiiroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog kefa xippi dootuma lim sama bopp ci jullit ñi wa minha bokk na ci laaj yooyu tamit xud naa baxran waqafatil anbiyaau waqafatil anbiyaau israil yi xuus nañ géej yoo xam ne yonent yaa ngi taxaw ci tefes ñett yi lañ ko laaj aljawaab tontu wallahu almuwaffiqu li bi mannihi wa karamihi li sawaab yàlla mooy dëppale nit ki ci mayam ak tedd ngam ngir mu jubal ab tontu amma ma dakarta min alxadis li nga tudd ci xadis bi wa huwa ulamaau ummati ka ambiyaay bani israil samay boroom xam-xam umma dañ leen di gam-gam leeg yonante bani israil فليس بحديث مولانا شيخ جاني لول دو حديث نص عليه الشيوطي شيوطي موكو يخل في الدرة المنتصرة في الأحاديث المشتهرة وسأل صاحب الإبريز شيخه من اللول برم إبريز لجنة كسرين رحمه الله ورضي عنه فقال له متندك ليس بحديث بحديث wa dikru wa dakarahu min jihati l kashf mu ne loolu dañ ko tudd maanaam daf ko nettali ci anam ak kashfu kashfu bi ko yàlla defal li annahu la dirayata lahu bi ilmi l hadis moom saahibul ibris jàng ibris jàngut bay xam hadis wa qawluhu xujja ala gayrihi waxam nag xujja la ci kaw keneen ku duut moom li annahu qutbun radiallahu ndax moom qutbu la radiallahu an kama saraxa bihi saahibul ibris comme ni ko saahibul ibris al mazkur biñ tuddoo wax wa amma al masalatu saani kon gis nga moona Cheikh Tidiane radiallahu anhu li mu tontu ci xadis boobu nee na du xadis waaye ñun lépp luñ moona Cheikh Tidiane wax ni xadis la donte que boroom xam-xamu xadis yi dañuy wax ni wérut ñun dañuy gëm ni wér na waaye fii dafa taxaw ne lii amul aslu te ki leeral ni amul aslu xamut jàng xamut bind yàllaa ko ko defal kashfu mu xam ni amul aslu wa ama al thaniya ñaareelu laaj bi nag fa laysa fiiha nafsu qawlul marsi fiiha kama zakarahu sail wa taxqiqu qawlu mursi mundu arbaina sana ma xujibat fiiha an illahi wala ma xajabtu fiha an illahi tarafata ayn walaw xajaba anni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tarafata ayn ma adattu nafsi min almuslimin mu ne ñaareelu laaj bi fa laysa fiha nekkut ci nafsu qawli al mursi nasab waxu mursi bi ko maanaam ni ko waa ji tuddee demee wax ji demeewul noonu moo na Cheikh Diagne ne wax ji nii la demee abul abbasil mursi dafa ne ñeen fukki at a ngi nii yàlla jiiruwut ci samay bët xef ak xippi lu tolloog xef ak xippi tayit bu ma jiiroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog xef ak xippi dootuma lim sama bopp ci jullit ñi والجواب عن هذا تنتو تي لولو نك ان هذه الخصوصيه ليست لماركي وحده دجل غوغو يال ديفل كو ماركي كفك انما هي لقطب الاقطاب في كل وقت كي دون قطب الاقطاب في جامونو جوني يال داك كوي دجل لول دو هيرو تي كانام يالا دو هيرو تي كانام يونتي صلى الله عليه وسلم منذ جلوسه على كرسي القطبان كرب بام توغي تي سيد القطبان لا تقع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابيه اصلا diggante ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kiiraay du fa dox wa xaytuma jaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xadati alxayb wa min xadati alshahada illa wa aynul qud wa aynu qudbi al aqtaar mutamakkinatun min annazar ilay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu mënta windeelu ci péeb xëybu ak ci péeb shahada maanaam ci xëyboog shahada fu mu mënta windeelu rek بتب قطب باني تجد لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات دهيرو تكنا مم دون بجن تشف قبل وأما المسألة الثالثة نتلو اللاجي وهي تموي سقوط ننجيت جو خم نيون تياني تحوش تفزي من فهي من كلام أبي يزيد البستاني رضي الله عنه لول ميني بوكو شو هو أبي يزيد البستاني رضي ليس من كلام المرسي بوكو تي كلام المرسي كما ذكرت كم نينكو تدوى خيفي wal tontu ci lii nag alam xamal ni ann al asla al asil la maxiida anhu mu ne xamal ni cosaanu cosaan yi nga xam ne kenn mënta jéng waleef loolu wala budda li kulli muminin min atiqaad yi te faw rek way gëm bu nekk gëm ko wa man xaraja anhu xaraja an te képp ku génn ci gëm loolu génn nga ci ci euh, ponki yi هو موي أن الحق سبحانه وتعالى تجلى بعلو كبريائه وعظمه وعظمته نبرم بتبارك وتعالى دفع سيني كي كاوت مجم دي أك دي وجلاله أك مجم وعم صفاته أك العالية أك متب ملوم يكاوي وأسمائه وخصوصه خصوصها أك وأن ذلك التجلي تبوغل التجلي ليس هو في كل شخص yàlla du ko def ci bépp mbindeef kama indal maanaam du ko def ci kii comme ni mu koy defee ci kële wala ala qanunin waxid du ko tëralee nag ci benn règle wala ala kayfiyatin mutrida du ko defee itamit ci benn melo balil basairu fiihi mutafawita gis-gis yi ci mbir mi dafay wuute واسرار الخلق في ذلك متباينا بوت يالا دي جوخ نيت ني سي لي دا فاي ووتي ني كثير وقليل سي لو بريك لو نيو كون نك فهو يتجلى لكل شخص على قدر طاقته وعلى قدر ما تسعه حويصلته من تجلي الجمال القدسي الذي لا تدرك له غايه مونه موم مولانا شيخ تيجان رضي الله عنه kenn ku nekk ci mbindeef yi yàlla day def tëjëli ci yow lu tolloog sa capacité ni nga attan ci tëjëli li nga xam maanaam ci sa tëjëlil jamaal xut si qudsi tëjëli bi nga xam ne mi ngi jëm ci taaru sell ak yàlla gi nga xam ne dayoom kenn mënu koo jot wala yuqifu lahu ala xaddin te kenn mënu koo taxawal ab dayo wala nihaaya wala daytal wa ida arifta hada boo xamee lii nag faalam xamal ni ann alladi fi martabatihi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne dafa taxaw ci martabaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min tajalliyaati sifaat ci ay feeñwaayu melo wal ismaa yi ak i tur wal xaqaayiqi ak i dëgg-dëgg laa matmaa fi darkihi kooku kenn mënta jotee kenn mënu koo jotee laa matmaa kenn amut kenn neen fépp fi darki jot ko li ahadin min akaabiri ulil azmi من الرسل في كان رك نيغا خامن نيواي نيواي بوروم اك دوغ وي سي يونتي يقول العز من الرسل خمس نيغا خام فضلا عمن دونهم رواتنا كدور نيوم سي يونتي يك مرسلون عليه الصلاه والسلام وان الذي في مرتبه اولي العز من الرسل كيغا خامن نك دا فا تخاو سي مرتبه اولي العز من الرسل لا مات لاحد في دركي كوكو amut kenn ci mbindeefak yàlla yi ku ko دب من عموم المرسلين مولم يونتينا وأن الذي في مرتبة الرسالة كتهو في مرتبة الرسالة لا مرتبة لا مطمع في درك لحد من عموم النبيين أنبياء وي مننو فخي بجت مرتبة والذي في مرتبة النبوة كتهو في مرتبة النبوة لا مطمع في درك لأحد من عموم الأقطاب قدبي مننو فخي بجت مرتبة والذي في مرتبة القطبانية كي تهون في مرتبة القطبانية لا مطمع لأحد في دركه من عموم الصديقيين صديقين أي ولا صديقين أي نيوم أمون يدن كفاسيتي بور جوتة مرتبة القطبوبي أنا القطبوبي جوغير وإن كان الأمر كذلك بفك كينك نون لدمي وعرفت هذا التفصيل نفهم بلا تقلي فاعلم قمني أن الشفحات التي صدرت من أكابر العارفين satahaat mooy wax yu kenn mënta dégg yi nga xam ne mi ngi génnee ci euh, aarif yu mag yi ma yuhimu aw yattadi lahum euh, sufuufan yi nga xam ne dañ koy jam-jamle wala muy làmboo anna lahum ne ñeel na leen sufuufan ak ak janoo wa uluwan ak ak kawe ala maratibi nabiyin ci martabab yonent yi wala ñuy xeeñcu martabab yonent yi ak mursaluna yi مثل قول أبي يزيد البستاني لمني وهو أبي يزيد البستاني رضي الله عنه دمي وحني خوص من جيد بو خمني أنبياء كتفز بلين تخاو ومثل قول شي عبد القادر جيلاني لمني وهو شيء عبد القادر جيلاني رضي الله عنه دمي وح ممتمد معاكر الأنبياء ين بولم يننتي أوتيتم اللقبة الله لن جوح أكاكسانت فأوتينا ما لم تؤتوا تجوحنا نلوم لن جوحوا ومثل قول ابن فارس lu mel ni waxu ibnu farid bi wa duunaka bahran xuttuhu xuttahu wa xuttuhu waqafal ula bi saahilihi sawnan li mawdii xurmati mu ne bàyyil ma géej xam ne xuus naa ko waaye yonentu yaa ngi taxaw ci pefes ba sawnan ngir ñoŋel li mawdii xurmati yi sama bërëbab xorma maanaam dañ may xormaal wa inni wa in kuntu ibnu aadama suuratan mu ne donte que man doomu aadama laa ci jëmm fa lii minhu maanan shahidun bi ubuwat am naa ci yàlla maanaa boo xam ne shahidun aji seet la bi ubuwat bil ubuwati ci ak ak baay maanaam may baayu mbindeef ba tey wax na wa fil mahdi xizbiya al anbiyaau wa fi ana wa fi anaasirin li waxyi al mahfuuzi wal fatxi suuratu mu ne wa fil mahdi cig mahdu cig berso xis bi sama xis bu maanaam sama parti al anbiya maanaam ba may nekk ci gerso laa bokk ak anbiya yi wa fi anasirin ci élément li waxyin mahfuusi ci wax yoog aji wattu ji wal fatxi ak fatxu suuratun mu yàb saar mu waxaat ne fa xayun ala jamil qadimi alladi bihi fa xayi ala jamil qadimi alladi bihi eh, wahattu ka hawlil hayyi abtaalu subuwati ba tey moom ibnu farid mooy wax ne ndokke la ci mbooleem ku fi jiitu te nga xam ni mbooleem ñooñu nekkoon fi dañuy nekk sama kanam comme ay xale gis nga yooyu yëpp ci ay xaalatul fanaa lañ koy waxee wa min fadlin ma anabtu surba maasi wa man kaana qalbi fal fadailu fadlati mu ne ci ngëneel ma anabtu ci laay leeralee surba maasi naan samay baat mooy wa man kaana qalbi képp koo xam ne nekk na ci sama xalbu bi fal fadailu fadlati ngëneel bu mën a am rek sama ngëneel la wa ka qawlihi fil kaafiya ak lu mel ni waxam ji ci kaafiya kullu man fihi maahu yahwaahu képp koo xam ne nekk na ci dingëreem yahwaahu eh, dina ko bëgg lakin ana <clears throat> waxyun di kulli man fihi maahu maay waxyu boo xam ne